asalaamaaleykum mbokku internet yu DKR 221 ñu dellu si di leen nuyu fas yéene dikk ak yéen ci information yi gën fës ci bisub tey jii. kañu cay dooree nag moo di rek mbirum Karim Wade bi nga xam ne pënd ba wëreegul ci loolu ki nga xam ne moom moo di yoon dafa daal di digal agent judiciaire de l' état di rek Antoine Félix Diome ngir mu dem fële ca réewum France ca Monaco ngir rek daal di saisir li nga xam ni moom moo di 24 comptes bancaires yoo xam ne Karim Wade moo ko moom bokk ko ak ki nga xam ni moom moo di ñoñam yooyu ñu jàppandoo woon ba tëjoon leen ku ci nekk juróom-benni at ñu mën cee tudd ki nga xam ni moom moo di Ibrahima Khalil Bourgi Abdou Karim Bourgi ak ki nga xam ni moom moo di Pape Mamadou Pouye ci kaw loole nag ba mu demee ba Monaco ngir rek def lu ni mel ñi nga xam ne ñoom ñoo di justice foofu dañu leen daal di bañal lu ni mel ba tax na ay loxoom la ñibbisiwaatee ci enquête bi mu bëggoon a mëne ci 24 comptes yooyu mbir mu ni mel nag di rek wàllum information boo xam ne waa DKR 221 dinañ leen ko toppal ba leneen lu ci bees ñu indi leen ko incha allah. ginnaaw loole ñu dikkaat yéen ci lu yees ñeel diggante ki nga xam ni moom moo di Diop Iseg ak ki nga xam ni moom moo di chanteuse bii di Dieynaba Baldé ñu gën koo xam ci Dieyna ginnaaw gi mu ko jiiñee ëmbal li ci yees nag moo di rek moom Diop ISEG ba ñu koy déglu ca fële nga xam ne moom moo di ca dig gañu ko téye garde à vue moom la mu xamle moo di ne rek jël na lu toll ci fukki million ak juróom maanaam 15 millions ci sunuy koppar daa di koy def jëmee ko ci frewu ki nga xam ne ni moom moo di na ba Balde ginnaaw ba mu jógee ca Kolda daa di koy ñëw dëkkal si fii ci Ndakaaru lu ni mel sax mi nga ko wax ci kanamu ki nga xam ne ni moom moo koy layool di maître Moussa saar mi mu jël pour avocat leneen lu ci yees di ki nga xam ne moom moo di Dieynaba Balde ak frère bi nga xam ne wowoon nañ leen fële ci dikk ba di leen entendre ñu xaw fa yàgg lool génn ci kaw loolee tamit woowaat nañu ñeneen ñu laalee ci mbir mi mu di rek bu ndaw ak yeneen xale jigéen yoo xam ne entendre nañ leen ci lu waral lu ñu mel moo di dañ leen doon laaj ana lu tax ñu jël photo wu wala vidéo wu nit di ko wili pande fi nga xam ne moom moo di ci réseau sociaux yi foofu lañ yem ak yéen ci xibaar boobu ba leneen lu ci yees ñu indi indiraatal leen ko ñu di dikkaat ak yéen wax ci lu yees ci li nga xam ni moom moo di faat bakkan ba am ca Thiès te ki nga xam ni moom mooy ci turu Assane Gueye daal di faat ki nga xam ni moom moo di Mariam Diagne la ca yees nag moo di rek yaayu ki faat bakkan di Assane Gueye yaay ji daal dafa daal di génn ci réseaux sociaux yi ginnaaw bi ñu ko tàllalee ab micro di xamle ni moom Assane Gueye di doomam da doon ngoroyoo ci lu yàgg lool moom ak ki nga xam ne moom moo di Marème Diagne waral ba indi na ci lu ay firnde ak i leeral ci kaw da fekk xale bu jigéen bi ci néegu Assane moom nee na yenn saay da ko daan dàq di ko wax demal toog sa wetu yaay ndax xale bu jigéen du fekk si góor nee na dàq yi mu ko daan dàq waraloon bi Assane demee fi nga xam ne moom moo di ca Maroc ngir daani dooleem Mariam boobu la ko gëjoon a gis ba plainte bi nga xam ne indil na ko ko foofee ca kër ga di ko xamle ni Assane dafa ñibbisiwaat fii ci Sénégal di ko tëkku ci kaw loolu yaay ji daal di ne ko man tegaguma bët Assane mu mel ni Assane kon dafa jóge ca Maroc ñibbisi rien que pour rek daal di janoo wala sax faat ki nga xam ne nii moom moo di Marème Diagne ci mbir moomu sax mu daal di koy def ci kaw loolu moom Assane ñu ngi xamal ci ay xibaar ni daan na tëkku ki nga xam ne moom moo di Marème Diagne di ko wax ni bis boo sëyee ak beneen góor dinaa la faat E ci kaw loolu Mariam daal di am jëkkër niki juin gi ñu génn waral ba moom tamit Assane lam ko digoon mu ñëw def ko ci weer wii di weeru mars ci kaw loolee tamit ñu ngi ñu xamal ba tey ci xibaar bi ginnaaw bi ñu dégloo yenn ci ay vidéo yoo xam ne ki nga xam ne moom mooy tante ci Assane Gueye def na ko moom nee na Assane dafa ñëw ne ko dafa am ku ma yore xaalis yóbbu naa ko ci yoon waaye ba tey fayu ma mu ne ko kan la mu ne ko Marème Diagne maire bi choqué wu ba ne ko ndax yow ak ak Marème seen diggante ba tey mi ngi dem ndax am na ay ñaaw-ñaaw yoo leen sekkoon ba ñu tas seen diggante kon lan nga fay utiwaat nee na ci kaw loolu la Assane daa di génn daa di dem kër ñoom Marème Diagne daa di koy faat ba tey ci ay témoin am na ñuy wax ni Assane am na presque ay fan yoo xam ne da doon rondu fi nga xam ne moom moo di kër ñoom Mariam Diagne chaque jour mu fay nekk ba ay nit daal di koy gis xàmmee ko mu mel ni rek lu nu mel Assane waajoon na ko lool soog koo def ba tey boobu boobule xibaar aussi dina leen ko toppal ba luñ ci am rek baaxee leen ko yéen suñu mbokk internet yi.